salaamualeykum yéen suñu mbokku tasxatu xibaar yi mu ngi leen di nuyu di leen souhaiter une bonne et heureuse année le président du PUR Serigne Moustapha Sy à travers ma voix à travers Yewwi Askan Wi mu ngi leen di souhaiter une bonne et heureuse année di ko souhaiter Sénégal yëpp te di leen wax yéen suñu mbokk taskatu xibaar yi seen taxawaay am na solo askan bi soxla na seen taxawaay waaye ñu ngi leen di xamal ne leen fi ñu jëm seen taxawaay dana ca gën a am solo ndax dañu nekk ci réew boo xamante ni nii ku wax dëgg ku wax li am ñu jël la tëj la te suñu maam Cheikh Ahmadou Tijani al Maktoum dafa doon wax ni taskatu xibaar mën nañ ko méngale ak yonent ndax kàddoom ñépp a koy dégg kàddoom fa muy yem fa muy dem tax na ba mën nañ ko méngale ak yonent ba tax na ñu leen di wax ne leen gën leen yokk seen taxawaay alternance bi jëkk am ci Sénégal amoon ngeen ci taxawaay bu am solo donc taxawaay boobu ci ngeen nekk ba fii ñu tollu sax leen ci te gën gën ci sax bu leen nangu bokk ci sénégalais yi nga xamante ni dañu leen di compal ñu tëj seen gémmiñ bu leen nangu bokk ci sénégalais yi nga xamante ni dañu leen di am fu ñu leen téye di leen defloo li nga xam ne ni moom la nguur gi bëgg moo tax seen taxawaay rafet na te xam nañ ne fi ñu jëm wax naa ko sànq danañu gën a soxla seen taxawaay askan wi moo koy gën a soxla donc taxaw leen fi ngeen taxaw li ngeen di def noonu la waaye gën leen ci taxaw du ma sama wax ak yéen te du ma sànni kàddu ci suñu camarades yi nga xamante ne nii léegi le président de Fall mi ngi koy wax ak ñi nga xam ne nii ñoom ñëpp jëkk nañ ma wax nekkuñu leneen lu dul ay otage politique jugement bi nga xamante ne nii juge bi rendre na ko lundi wanewul lu dul li yitteel Macky Sall mooy seeni mandat seen mandat rek moo leen yitteel moo ko yitteel que soxna Aïda Mbodj wax na ko sànq mu utiliser jigéen comme objet ak jigéen fi ko sunu borom teg ak jigéen li muy représenter ci société bi ci nguuru Macky Sall la ñu gën a gis lu mel noonu mu jël jigéen def ko muy objet di ko def looloo xam ne nii kenn nanguwul ku bokk ci yow ku takk ci yow di ko def moom en tant que président de la république mi nga xam ne nii dafa war a aar protéger jàppale mu leen di jël di leen utiliser comme ay objet donc ñu ngi wax Mamadou ak Masata ne leen fi ngeen nekk weetu leen fa fi ngeen nekk ñun ak yéen ñoo fa nekk ak yéen ndax jàpp leen ne ay victimes politiques ngeen ñooñu su fekkoon ñu ngi bokk coalition Yewwi Askan Wi tey ñu ngi toog ak seen i njaboot di naan seeni i attaaya wala di waxtaan wala di lekk seen ceebu jën c'est parce que dañu bokk coalition Yewwi Askan Wi c'est parce que dañu bokk parti pur c'est parce que dañu bokk ci njabootu Serigne Moustapha moo tax ñu tëj leen waaye Macky Sall ñu ngi koy wax ne ko bu ko neexee na tëj ñëpp na ñu tëj ñun ñëpp waaye na xam ni dana fi jóge incha allahu rabbi Un an, le président Léopold Senghor. Un an, le président Abdou Diouf. Un an, le président Abdoulaye Wade. ana ñu est-ce que ñu ngi ci nguur gi ba léegi ana seeni ministre ana ñi ñu àndaloon ana ñoom ñi ñi leen doon jàppale ñi fàtte nañ leen ñii ñu ngi feneen moom na xam ne yoon boobu ñoo ñu jaar foofu lay jaar donte ñooñu jaar nañ ci yoon boo xam ne nii am na lu baax lu ñuy fàttaliku ci ñoom waaye moom ma Macky Sall na xam ne day dem te liy des bu demee mooy li mu fi def ci lu bon ndax ma Macky Sall defu fi lu baax defu fi lu baax bi nga xamante ne ni président bi bu bu bu bëgg askanam président bu naw askanam président bu respecté askanam mu ngi liggéey pour def sénégalais ñu nekk ay citoyens moom ba mu toogee ci nguur gi ba léegi dafay liggéey pour sénégalais yi nekk ay électeurs c'est très important nekk citoyen moo gën nekk électeur te Macky Sall fi mu teg tànkam mooy sénégalais yi nekk ay électeurs nekk électeur mooy lan sa dundin sama yoon nekku ci sa njàng sama yoon nekku ci sa wér-gu-yaram sama yoon nekku ci yow sa famille ak ñi la wër boo bokkulee ak man li ma yitteel mooy danaa la toroxal danaa la xoqatal danaa la sonal waaye bu élection di jib ma jël li nga xam ne ni yéen ñëpp ngeen boole jox ma ma jël ci di leen compal benn par benn pour wax leen ne leen votel ma boo leen ma votelee ba pare ma continuer waat ca la ma nekkee woon ak yow ak yéen mooy di leen toroxal di leen xoqatal di leen humilier di leen teg loo xamante ne nii mala mala sax duñ ko ko teg da ngay xool Sénégal suñu mbokk jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi conditions yi ñuy dundee tey jii nii ñii bu ñu añee duñu reer ñii bu ñu ndekkee duñu añ ñii amatuñu fu ñu dëkk parce que loyer bi dafa cher condition yi nga xam ne nii moom la sénégalais yi di dund jamono bi mosuñu ko dund ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi et loolu kan moo ko indi kenn la mooy président de la république Macky Sall et pendant ce temps ñi ànd ak moom muy ministre muy muy député muy maire muy conseiller loo mën di doon dès lors que yaa ngi bokk ànd ak Macky Sall am nga immunité mooy maanaam justice bi daf lay épargner ana Bougazeli yéen a ngi koy dégg ak njombe mu rëy bi mu fi def ana Mansour Diallo nu mu tudd Mansour Diallo la xaw ma Mamour Diallo anañu li ñu def ci njombe li ñu def ci ci ci ci ci loo xam ne nii yoon dafa waroon teg ci seen kaw mais c'est parce que dañu ànd ak Macky Sall c'est parce que dañu bokk ci coalition Yewwi euh, coalition Benno Bokk Yaakaar moo tax kenn du leen def dara ana Mansour Faye Cour de comptes lan la wax nañu ubbi une information judiciaire pour topp leen ñoom waaw ñoo ñu ko wax ñan lañ est-ce que Khalifa Sall la est-ce que Ousmane Sonko la est-ce que ay Soxna Aïda Mbodj la est-ce que Déthié Fall moo ko wax ay magistrats ñoo ko wax ñoo ne nañu ubbi information judiciaire topp leen ñooñu justice bi jàkkaarloo ak ñoom wax ak ñoom mais le président n'a pas trouvé mieux que de donner de simples directive à son première ministre bàyyi Mansour Faye muy tambambaalu ci dëkk bi lañu ko dénk mënu ci dara ne xamu ci dara bàyyi Moustapha Diop muy tambambalu ci dëkk bi Moustapha Diop moom rapport Cour des comptes dafa ni daafam je pense pendant vingt cinq jours dafay retirer cent millions par jour mais loolu sénégalais yi dañuy noppi ci loolu wala dañ leen a euh, piqûre boo xam ne nii seen seen umaanité dafa dem ñu ne leen ci rapport Cour des comptes boobu donte xam nañ ne état bi tàmm na na sax di voté loo ñoo xam ne ni dunduñu mooy ñi génne àdduna ñu jël ci ñoo xamante nii ñoo bokk tur bokk sant bokk adresse maanaam benn nit ñu jël ko jox ko ci edd boobu lu toll ci ay xaalis bu dul jeex kenn du ci wax dara ñu noppi ne Macky Sall ba mu ñëwee ci nguur gi ba léegi li fi nekk ci scandale ñu ngi leen koy wax suñu point de presse bi passé loolu yëpp Sénégal yi dañu ci noppi fàtte ko pourquoi lu waral loolu xanaa dañu on est devenu amnésique wala xërëmu Macky Sall yi moo am doole ba Sénégal yi lu mu leen def loo mu def ko waaye nag nañu xam ne moom léppam xërëm la wax nañ leen ko et léppam li mu nekk xërëm moo tax mu yaakaar ne li ko buxaabam yooyu di wax dana sotti waaye na xam ne sunu borom moo ëpp doole ñëpp luñ ko mën di wax na xam ne sunu boroom moo ko moo ëpp doole buxaabam yooyu te askanu dana ñu jóg taxaw jàkkaarloo ak moom te ñu ngi wax les neutres euh, Desmond Tutu dafay wax ne être neutre devant l'injustice c'est être du côté de l'oppresseur. Et aujourd'hui l'oppresseur c'est Macky Sall. donc ñi nga xam ne ni dañu am tur ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne am nañ doyoo ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne am nañu juddu ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne yàlla am na lu mu leen suturaal wala ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne seen kàddu danañ leen dégg ñu ngi leen wax ne leen faut pas que vous soyez neutre face à l'injustice de Macky Être neutre, c'est être du côté de Macky Sall. Être neutre, c'est accepter ñu jël sénégalais yi di leen bundu xataal di leen opprimer. Être neutre aujourd'hui au Sénégal, c'est accepter de jouer le jeu de Macky Sall. C'est accepter que les Sénégalais soient tués. C'est accepter que deux militaires yu nga xamante ne nii dañu leen mës a xam ràññee leen ci njub ñu liggéeyal seen réew bàyyi seen i njaboot. bàyyi seen i wayjur bàyyi seen famille ñu accepter ñu noot leen boom leen rey leen ba nga xam ne nii kenn kii feeñ na ñu nangu ñu bañ ne duñu def autopsie keneen ki kenn gisatu ko mënuñ ko gis ba léegi te bari na ñuy wax ne dañu ko rey daggate ko sànni ko moo tax kenn mënu ko gis donc être neutre c'est cautionner acte yu mel noonu donc yéen ñi nga xam ne nii les bien pensants yéen ñi nga xam ne ni yéen a ne yéen da ngeen a neutre xam leen ne seen neutralité dana leen rattraper xam leen ne seen neutralité mooy jàppale Macky Sall yéen ñi nga xam ne ne yi da ngeen di wax ne politique sama yoon nekku ci politique intéressé wu ma xam leen ne seeni famille danañu souffrir yéen da ngeen di souffrir ci boo leen toogee seetaan Macky Sall ba mu continuer di noot seeni askan donc fi mu nekk nii égoïsme bi doy na nañu nekk am solidarité xam ne Sénégal suñu mag ñi suñu maam yi dafa am taxawaay bu ñu amoon moo tax aujourd'hui ñu mën a euh, yeewu am taxawaay am tur am loo xam ne nii ñu ngi koy bénéficier wu parce que ñoom dañu amoon taxawaay bu ñu am ñun nag loolu bu ñu ko xañ suñu ay sët loolu bu ñu ko xañ ñi nga xam ne nii ñoo war a ñëw suñu gannaaw ñun ñoo war a taxaw jële fi Macky Sall ndax bu ñu yaakaaree ne occidentaux yi ñoo ñëw jëlee ko fi dañuy nax suñu bopp occidentaux yi li leen gën a yitteel moo di kaawoo am ñu ne Macky Sall defal état d'urgence état d'exception nga def lu la neex ñoom ñu seetaan parce que xam nañ Sénégal li fi am ci ressource naturelle li leen yitteel mooy ressource naturelle Sénégal mais jàmm réewu Sénégal yittelu leen que sénégalais yi am jàmm yittelu leen la preuve mooy ci seeni dëkk bëri na sénégalais yu ñuy noot yu ñuy boom intéressé wu leen li leen yitteel mooy seeni intérêt concitoyen waaw ñun ki ñu jiite suñu intérêt yitteelu ko mais lu tax ñun duñu jóg jële ko fi lan moo waral la duñu lu lu lu waral war a tax du ñu jóg jëlee ko fi ñun ñoo ko fi teg Macky Sall hérité wul pouvoir bi sénégalais yi ñoo ko fi teg te bañ ko fi teg it dañ fi bëggoon jëlee Ablaye wàdd loolu la rek tàmm ñu choisir suñu ay élus dañoo tàmm folli jot na nag ñoo mën a folli waaye mën a fal te ci fii la war a commencer Macky Sall jot na mu jóge fi te ñoom ñi nga xam ne nii ñoo ànd ak Macky Sall ñu ngi leen di wax ne leen buur kenn du ko faral da nga koy jàppale te jàppale buur danga ko war a teg ci bëgg-bëgg askanam bi nga xam ne nii moo ko fa teg donc yéen ministres yi yéen député yi yéen élus yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di wax ne leen seen passage ci régime bi c'est éphémère liggéey leen ngir seen askan bàyyi leen seen xel seen askan ana li fi woon ci ministre de la justice ana li fi woon ci ministre de l'intérieur fàtte nañu leen donc Antoine Diome ak le le tailleur de la justice le le le le le le le, le, le ministre économique ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ne leen bàyyi leen xel seen askan li leen fi dese bëriwul li leen fi dese as néew ci weer liggéey leen ngir seen askan ba bu leen fi jógee ñu mën a jàpp loolu waaye yi nag ñu ngi leen di fàttali ne leen ah justice dana def liggéeyam de su fekkee ne procureur bi nga xam ne nii moo fi nekk te ñuy wax ne le justice doit être rendue au nom du peuple te ñu constate it ne justice bi dañ koy rendre au nom du président de la république Macky Sall procureur boobu ñu ngi koy wax ne ko moom mi nga xam ne nii moo fi wax a nekkal askan bi ñu ngi koy wax ne ko mu dellu ci li nga xam ne nii mooy ay attribution yam li nga xam ne nii mooy statut am li nga xam ne nii mooy cëram mooy mu ñëw taxaw ngir askanam bañ a taxaw ngir Macky Sall parce que moom ci boppam na xam ne ah li muy lay li muy wax danañ ko layoo ak askan wi dana ko layool ak sunu borom te justice bi ngir bañ a guddal il faut ñu taxaw ba mu am juge des libertés procureur bi nga xam ne nii mooy bras armé Macky Sall moom la Macky Sall di wax mu def bu ne koo tëjal mu tëj bu ne ko euh, libéral mu libere bu ne ko protégel mu protégé mais procureur boobu moom mooy moom mooy moom moom moo am pouvoir tëj ak tijji te kooku ci ci jotu Macky Sall la nekk ak ministre de la justice donc dëkk boobu naka la fi justice mën a amee justice mënul am Sénégal ndax ki nga xam ne mooy procureur de la république Macky Sall moo koy defloo te suñu mbokku député yu ñu tij loolu leer na ci ku am immunité parlementaire ñu jël ko teg ko fële tëj la six mois ferme waaye it ñu ngi wax ndaw soosu ñoom ñu utiliser comme femme objet ba yegg si fii nga xam ne nii mooy fii ñu yegg si ba tëj suñu mbokku député yooyu ñu ngi koy wax ne ko dinañu demander demander nañ ko def nañu appel bu fekkee mandat boobu moo tax dina dinañu précipiter nag procédure bi comme ni ñu defoon ak Khalifa Sall waaye danañu dem ba Cour suprême bañu ñu ko ba Cour suprême pour wax leen ne leen mandat bi ngeen bëgg danañu def tout ba mandat boobu du leen ko jot te kooku ñu utiliser comme femme objet danañu demander expertise judiciaire pour xam ndax ëmb bi lu am la wala lu amul parce que ñoom nee nañ jugement bi dañ koo teg ci parce que ndaw si dafa ëmb waaye it li ma jaaxal mooy ku ëmb ba pare panke ni ndaw soosu panke di saaga di xeex du xuloo di sànni ay chaise moo tax jar nañu xool ndax ëmb boobu am na wala amul donc ngir bañ a guddal ñu ngi wax sénégalais yi ne leen ngeen jóg ànd muy menuisier bi muy pêcheur bi muy jaaykat bi képp ku mu mën a doon nga nekk sénégalais nekk ci réew mi ñu ngi lay ñaan ne le aljuma bii di ñëw nañu dajee place de l'obélisque à partir de 15 heures ñi fa mën a dem fanaan sax nañu dem fanaan ñi fa mën a yendu nañu dem yendu ñu jàkkaarloo ak Macky Sall xamal ko moom ne ko li mu yor ñun ñoo ko ko joxoon danañu ko jël soxlawtuñu mu nekk président de la république waaye it bu fi jógee lépp lu yoon war a dal ci kawam dana dal ci kawam parce que dana yomb lool mu def njomb yi toll nii ba pare jóge fii ñu koy utal ay asile ak wala muy dem ci institution internationale danañu def lépp loo xam ne nii war na ko layoo moom ak ñi mu àndal dana ñu jàkkaarloo ak juge ak dem ci tribunaux yi ba nga xam ne nii mu leer au nom du peuple wasalaamualeykum wa rahmatullah